bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbi alamin ginnaaw bi nu sante yàlla di julli ci yeneen tàmbu tedd bi suñu yaakaar teeg ëllëg di seydina limaam alayhi salaatu wasalaam di ñaanal yanu yàlla fayal bàyyi laay ak jabootam waaye yàggal fi suñu xalifa seydina El Hadji Baye mu yàgg fi lool ànd ak wér ak njabootu seydina limaam alayhi salaatu wasalaam gépp ñu ngi nuyu mbooleem ku ñun ci petit écran bi di seetaan ñu lay wax lay lay lay maxtaar ku gis sunu taxaway bi ñi ngi taxaw fi ci hôpital bu Cambérène centre de santé Rohoullaye isa bu Cambérène ñu taxaw aussi ci gannaaw ambulance bu Cambérène bi nga xamanteni bi mu panek léegi yag na torop tay ñu ñëwoon fi and ak ñenn ñi nga xamanteni ñoo dëkk ci dëkk bi di waxe nak ci sunu prof du propre du initiative jël engagement lii ñuy bëgg a def am volonté dëkk ci dëkk bi gis am ay jafe-jafe yu fi am ñu bëgg a ñëw apporter sunu soutien ambulance bii ngeen gis moom la ñu war a évacuer ñi nga xamante ni dañoo nekk ci jafe-jafe ñu gis ñi nit balaa ngay mën a jaamu yàlla sax il faut que nga wér te ko amul wér doo mën a def dara te Cambérène yaakaar naa ni ñuy gis ambulance buy am problème mu panne boo xamante ni valeur de huit cent mille la pour man loolu gàcce la sax si ñun donc nag ñun li nu man mooy woo ñi nga xamante ni dañuy jëf te yàlla rek a tax la ñuy jëf luñ si seenu keneen ku dul yàlla fay leen ñuy woo képp koo xamante ni dëkk nga du Cambérène Cambérène fait cinquante mille habitants te dañoo bëgg tey jii ñu taxaw fii dimanche di def lii suba ci heure bii somme bi nga xamante ni soxla nañ ko pour. dépanner ambulance bi ñu am ko 800000 nan nan moom moo koy moom moo koy defar mais man waxuma sax waxu 800000 2 millions laa bëgg 2 laa bëgg ñu volontaire jaayante ndax hôpital bi yaakaar na avant muy toll fii Seydina Issa alayhi salaam moo ko fi indi bu dul dara ñu xool ci jëmmam jooju man su ma ko soxlawul am naa mbokk mu ko soxla su ma ko jariñoowul am naa mbokk mu ko mën a jariñoo donc nanu xool ci loolu ñu xam ni mbir mii mi ngi bëgg a yàgg am na ay nit yoo xamante ni génn nañ fi àddina naam sunu boroom mooy dogal waaye mënoon nañ leen sauver su ambulance bii baaxoon matériel hôpital bi bu fi amoon ñaaw na ñu naan diw dafa dem ci hôpital ba soxla woon nangam jotu ko am anamu dee na du faatu na loolu dafa ñaaw kon sama mbokk yi yéen ñi nga xamante ni lu baax lu ne yéen a ngi ci yéen laay waxal may ñaan kenn ku ci nekk bu dee téeméer la wala moo xam 1000 francs la waaye na nga ko joxe waay am na numéro orange ne bu nuy joxe képp ku bëgg a barkeelu nga dugal ko si incha allah rabbi ku xool jëmm yi nga xam ne seen loxo set na wicc ñoo xamante ne ay góor lañu du ñu def dara ngir seen bopp incha allah rabbi danañ ko teg fi ñu ko war a teg jaaral ko fi ñu ko war a la waxtaan nañu ak ñu nu war a waxtaanal léegi la fi docteur bi jugee. Chiré Fall Kéré gis nañ ko moom mi yor secrétariat ak monsieur le maire donc nag maa ngi woo képp koo xamante ni su jihaat taxawee nga jihaat lef def lu baax su taxawee nga def lu baax ñu ngi lay woo ci ambulance bi nga xamante ni mi ngi bëgg yàgg nga indi sa sa nga nga indi li nga am bu dee 1000 francs xeebunu bu dee 2000 xeebunu waaye ñu ngi woo waa diaspora bi ñu ngi leen di jox numéro orange money bi 77 5 454 56. moy numéro orange money bi incha dina jàll ci écran bi ko am lu muy barkelo barkelo ko ma ngi yamal fof su may cadeau di way Cheikh Sow mu joxe du contribution joxe khalatam Cheikh bismillah. wa bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sante yàlla bu baax di julli ci sayidina limam di ñaanal sayidina bay abdullah mu yag fi lol te ànd ak wér ak ahlu bayt sayidina limam lay gep comme niñ ko waxe rek li waa sàmm ñu ngi lay ñu lay gërëm bu baax initiative bi mom initiative ñaari personne la waaye je pense que dëkk bi moo ñu tax a jóg. ambulance bi nga xam ni yàlla dafa dogal day sauver ay bakkan muy ambulance médicalisée bi nga xamante ni dafa paan ay ay weer a ngi nii mu taxaw fii mu taxaw ñu gis nii ñun doomu dëkk bi dëkk bi ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp. ñu ñoo porté volonté jël en charge ambulance bi bi ñu defee suñu investigation ak les techniciens nee nañu valeur u huit cent mille francs mooy defar ambulance bi ay injecteur la panne. contacté nañ depuis Espagne ay techniciens yu nekk foofu nee nañ ñu bu ñu amee huit cent mille ñu indil injecteur copie conforme ak yi nga xamante ni moo yàlla dogal mu panne donc comme li nga Liba waxee rek ñu ngi tàllal loxo dëkk bi yëpp dëkk bi suñ ko waxee Cambérène je pense que huit cent mille warul nekk suñu problème léegi nag quête solidarité lañ koy def ambulance bi day jëriñ ma Samba day jëriñ ma Demba day jëriñ sax ñoo xamante ni dëkkunu Cambérène mm-hmm. comme ni ko Libaas ñëpp dugal ci seen loxo. Mhm. benn nit wala ñaar nit mën na ko jël en charge mais pour mu barkeel il faut ñëpp dugal ci seen loxo téeméer ñaar téeméer ba dix mille francs sox ñu dara. Euh, contacté nañ Sidi Fall Karasi mi nga xamante ni mooy président centre bi jox nañu ndigal seeti nañ monsieur le maire idem la même chose tafetlu initiative bi donc gis nañ docteur Diop vraiment rafetlu rafetlu na ko donc pour vu dire que ni rek ñu ngi si si bonne voie donc ñu ngi tàllal suñu loxo rek pour que la population de Cambérène ñëw suivre li nga xamante ni ñoom lañ koy defal ambulance bi su tàkkee médicalisé la bakken bu war a bu yàlla dogal ñu war la mën a sauver ambulance bi war na la mën a sauver am na ay bakken yoo xamante ni génn nañ fi àdduna si dogalu yàlla comme ni ko libaas waxee waaye bu ñu amoon assistance bu doy yàlla mën na dogaloon ñu ñu ñu ñu sauver. waaw léegi comme ni ñu ko waxee rek euh, ambulance bi toog na ay weer a ngi nii dawul donc nag ñu bëgg sàkku si yéen ñëpp ndimbal lu ngeen si mën a jàpp rek te yàlla tax fii sabilillahi ngeen def ko te yàlla tax jërë ngeen jëf.